lii dama jaral lu ne. man góor du ma asale góor du ma gëtëng. mais dama la ne. paquet du biscuit. benn doo koy yëy. li ma waxoon maa ngi jaba tey. li wax ji di gën a bari mu gën a metti mais ku bëgg a gis prix dur prix dur. xeex naa mu joo xamante ne sama bakkan laay teg. man foo sax bëgguma ñàkk. waxum laaj a ñu dugg biir kii. rek maa la gën a xottee. fuuf fuuf. yow man man may yàqu. la waaw man damaa maa la gën a xottee. ñu tàngoo yàqu di dem waaw borom baax a sonn ci nit la liir tey boo xoolee tey même boo gisee statam sax booy géej waay yëpp lay stati xoolul mbër bu mag xoolul mbër bu a taxawee a fédéré a bootaat xam ne njiit neexul rawatina nag nga boot ay mbër bu nga xam ne ay mbër moom ku leen boot moom hôpital dalal xel rek nga war a jëmee ko ñoom ay mbër mais nag moom mu boot leen bëgg leen andi si biir nit ñi bëgg ñu bëgg ñu réussir bëgg ñu tekki loolu si vraiment maanaam loolu mooy grandeur loolu mooy politique la vocation de la politique c'est le social waaye la politique d'aujourd'hui doit être l'insertion mu ngi dimbale xale yi ba xale yi di am su luñ jàpp kon kii tey monument la biir Guédiawaye na ko waa Guédiawaye ko waa Guédiawaye gëstu jàppale ci combat MMA bi di ko jàppale contact muy sato di xeex ñu koy dóor ay gants ba kanam bi néew bu demee mën a am ndam loolu laa loolu laa bëgg waaw amal jàmm yow <laughs> gannaaw bi mu la nuyoo sénégalais yëpp wala monde làmb ñëpp dañ ne Lirou Diane c'est le monument Lirou wax lu baax la xam jëf lu baax la xam mais Lirou Diane lan moo duggoo ci MMA. parce que boo seetaanee combat yi fi jot a am seetaan nga dem seetaan nga combat préliminaire yi nga xamante booy yi seen loxo yeeg seen tànk yi dañuy wax ni fuñ ko yónni mu dem. waaw balaa dara xew dañuy féliciter Reug Reug Omar Kane Reug Reug grand champion ndax Sénégal la teewaloon doon xeexal démb. du caaroy Sénégal loon xeexal démb drapeau Sénégal la yóbbuwoon africain Afrique gépp a ngi woon ci ginnaawam monde Sénégal ñëpp a ngi woon ci ginnaawam di ko ñaanal yàlla na ko ndam li jik sigil na senegal sigil na senegal sigil na axlu làmb te Sénégal yëpp ci ginnaaw axlu làmb lépp a ngi woon ci ginnaawam vraiment ndam li daal ñëpp a ci kontaan man de kontaan naa ci tey waa Guédiawaye gépp kontaan Sénégal ak kontaan nañ ci ndax ñëpp ko yéene ndax drapeau Sénégal bi mu yóodu woon yàlla na ko ndam li jik ay yeneen i ndam ndam ndam di ko di ci topp ci élément bi yàlla na ko ndam li lum ci am daal yàlla na ko muurloo lum ci am yàlla na ko jik vraiment ñëpp ko kontaan ci moom ndax ki mu doon xeexal champion la champion la de monde la Reug Reug ñëw ak moom gañe ko à la manière kon nag dañ ko war a féliciter dañ ko war a ñaanal yàlla na ko ndam la jik ñëpp a kontaan ci rëg-rëg démb daal suñu xol ñëpp seddaan na ci rëg-rëg ndax sigil nañu demb sagal nañu sagal na Sénégal ba pare président bi liñ doon xaar ci moom vraiment def na ko muy leen félicité bi mu félicité rëg-rëg vraiment kontaan nañ ci loolu lii la ñuy xaar ci njiitum réew ñëpp a kontaan ci président bi daal kontaan naa jërëjëf rëg-rëg félicitation félicitation tout le Sénégalais ñoo ngi leen fi ndam li rëg-rëg moomu ko Sénégalais yee moom ndam li Reug moomu ko sénégalais yee ko moom ndax drapeau Sénégal la ñëpp kontaan nañ jërëjëf dañ maa sàcc léegi nag barki Serigne Saliou Mbacke. duñ la sàcc dañoo daj sama salle. loolu sama écran bu mag a mag a mag a mag waaye sant yàlla rek ki ko def daf maa xam waaye nag yàlla baax na. waaye ba nga génn daaj billaay yàlla na ko sama àq dal yàlla na ko sama àq waaye ku ma xam la nag waaye na dox ñu dem ba bi déwén. dañ maa teg bët waaye dañ ma cëppee. def ñaaw na xarit bu ne nag la am façon fan bu ne laa am ki ma def lii daf maa xam de billaahi wallaahi taalaay daf maa xam daf maa xam waaye yàlla baax na. daf koy bàyyi non yàlla baax na ki ko def daal xam na ma man xam naa waaye nag yàlla baax na ndax dafa nekk bu ma génn mu ñëw daal ci sama salle yóbbu sama télé yóbbu samay matériel sama yaram dafa tàng tey booy bi bëree mënu ma ñàkk may ñëw muy si Junior ndax suma jarbaat la suma doom la comprendre nga bu nekk xale bu yaru bu ma jox cër moo tax ma bàyyi li may def yëpp daal di ñëw waaye nag sant yàlla yàlla buur bu baax la ñooñu gërëm ñëpp di kontaan ñëpp vraiment tey suma xol neexul sama xol neexul. sama xol neexul mais euh, dama gis ki nga xamante ne nii mooy euh, mbiru làmb yu léegi. waaw dañoo jug. dem def MMA. waaw te MMA ku ne xam na am na risque yoo xamante ne da cee am. waaw lan nga leen di wax ci wàllum entraînement ci wàllu. Euh, ñu am ay euh, assurance yoo xamante ni bu la bu yàlla tere. yàlla tere waaw gis nañ paa yaa ngi ci dugg gis nañ xale yaa ngi dugg ci MMA bi. xanaa mën ngay wax soo nee paa ci dugg xanaa man ngay wax. xanaa mën ngay wax man maa wax ji man paa laa man paa laa. Mm, damay laaj man paa laa non damay man paa bala 30 ak jàmm yàlla na ci yàlla yóbbu ak jàmm bala 30 ak lii foofu góor la Sénégal ragal dëkk fi ay gaynde ñoo fi dëkk tey jour boobu ar si la war a xeex euh, kii euh, Petit Lo si la war a xeex Serigne Ndiaye si la war a xeex euh, si la war a xeex at man ñaanal ñëpp ñu am ndam xale yi ay jàmbaar lañu Sénégal ay gayndee fi dëkk ay jàmbaar a fi dëkk yàlla nañu yàlla defal jàmm. ñu bàyyi nag nee nañu bi moo la dugal tey xaalis sama dugal maa tey maa xalaa catu ngeen ma ban sàcc ma tey catu ngeen ma ban sàcc ma sàcc nañ ma léegi nag sëñ jeex na sàcc nañ ma barki Serigne Fallou Mbacke sàcc nañ ma. waaye nag la annoncé ne la sa adversaire dañ koy changé. waaw ngay zibilé. kon yow demoon non zibilé wu ma de zibilé wu ma de. zibilé wu ma de zibilé wu de. lan nga yëg ban mbégte nga am. non non waaw non non li tax ñu ne ñoom dañ ko ah, ah, changé ñoom ñoo ko xam man du ma ragal man jàmbaar laa man du ma ragal man gaynde laa man gaynde laa. naa Balla daa woote la jox kooku du rakk lan ñoom ñoom ñoo ne il faut ñu xool ki jox ñoom ñoo ne il faut ñu xool may jox loolu la rek man samay rakk lanu samay rakk lanu lu nu bëgg ak lu nuy def moom si laay ànd tey si laay ànd ëllëg ndax sama ndam la nu bëgg demuma pour daanu damaa dem pour indi drapeau bi yóbbu drapeau Sénégal indiwaat ko indi leen ndam loolu moom a tax a jóg kon damay xeex damay reyante ñii tey ñoo ngi demoon Eric Faaf ñoo ngi dem doon ma signé leen ñaari combat muy trois may leen bàyyi leen ba ma génn ci bii ma nekk bàyyi leen ba ma génn ci bii di leen ñetti avance bàyyi bi ma génn ci la 30 bi. da ngaa wóolul sa bopp naa sama bopp baax a baax bàyyi ma génn ci la 30 te incha allah rabi sooba yàlla su 30 rek ngeen gis loolu mënta gis sama noonu yi socc bi laay deen ko denc. ñëpp nee nañ nag benn kuulal doo nga tàpp tàpp. waaw kon nag mu yomb kon xanaa du ma góor man may gaynde sant Njaay dëkk Géejawaay juddoo Géejawaay Géejawaay ragal dëkku fa coma dëkku fa sama rak yëpp ak sama ginnaaw sama rak yëpp ak sama ginnaaw ak sénégalais ñëpp a teg moom. waaw gagné mais ñu ci booy kay booy kay démb moom fayeku nan. dégg naa nag ah, am naar bi ah, a soxor. code 1 code 1 moom bëriwul. ba boobu naa bett bari dinaa bett ñu bari man maa la wax lii ba boobu. Ah, Ada Fass dafa bu ñu wax Michael Fora. tam nekk Fora Michael Fora dafa am ma woo ndeysaan am lu ma wax ma kontaan ci moom. bu baax a baax Michael Fora. lu mu la wax sa yoon nekku ci. daf maa woo am lu ma wax ci enema bi. dalaa ñaax sa yoon nekku ci ñaax na ma. ba pare am lu ma wax daal loolu maag moom la Michael Fora ne waaye noonu la mën a mel ndax dafa bëgg sama rakk ñi muy Balla Gaye 2 naa ci Michael Fora jërë ngeen jëf ñaanal leen ma rek tey sama xol neexul. est-ce que xam nga ne MMA bi doon nañ ci nit mu wàcc. waaw baax na bis. doon nañ nit mu yàbb dafa mel loolu nga ma yéene yow daa mel loolu nga ma yéene booy yow booy ku soxoon nga sa sikki mu bi nga yor defe yaa nga yàlla baax na. mais nan ngay wax Balla Gaye de macha allah macha allah macha allah laf cat lafal ñu yàlla nu yàlla lafal cat géej wa ci kaw ci kanam ñëpp a liggéey ñu am combat ñoo ngi waajal seeni combat ñu amagul combat ñoo ngi waajal ñoo ngi suruxu di liggéey yàlla na nu yàlla suturaal musal ñu ci cat at la meñ géej ci kaw ci kanam suba sama doom day bëre muy balañ yàlla na ko yàlla may ndam balañ balañ bu ndaw muy fàllu yàlla na ko yàlla may ndam su at Elton mi war a bëre nii. mais nag mais waaw non mënu koo yëngal. li mu yàq Alioune waaw non xam nga Gris 2 kenn xamee wu ko wax bu ñaaw Alioune Seye kenn xamee wu ko wax bu ñaaw xañ na Gris dafa bëgg a jaay làmb ji rek pour bëgg a moom rek loolu moo tax mu waxee moom Alioune tam kenn xamee woo wax bu ñaaw li mu wax xam nga kenn xamee ko xañ na dafa yéeg rek waaye kenn xamee wu ko ñoom ñaa ñëpp ay champion waaye Alioune Seye du bëreeg Gris 2. ndax lan te du bëreeg moom rek. champion la ndaanaan la Alioune moo bëreewul ak moom voilà. loolu lan Alioune Seye bëreewul moom ko raw ci lamb daa bëriwul moom du question raw waaye dafa bëriwul ak moom bëriwul ak moom. ngeen ko wala. oh du question ragal ñu am ñu ne rek Aliou Seye dafa bëriwul moom xool nag Aliou Seye nag vraiment dafa yàgg ci yoon wi ñu ci kaw dañ ko war a tàllal loxo dañ ko war a may loxo mu yéeg dafa yàgg ci yoon wi nekk fii bëri ay moroomam rek ak i moroom rakam c'est pas normal dañ ko war a may loxo mu yéeg dañ ko war a may loxo mu yéeg incha allah. est-ce que su bëree Gris 2 su ko daane mënu am Gris numéro 1. kan Gris moo ko war a tàllal loxo. Gris moo ko war a tàllal loxo voilà. nga jàpp ne Alioune Seye du morom Gris de. non non du question la. bëri naa ku ne waaye Alioune dafa yàgg ci Gris fi mu teg bëtam fala la Alioune Seye teg bëtam na jaar nii Alioune Seye jaar nii bis bu war a daje deen daje. Gris de champion la Alioune na jaar nii Alioune Seye jaar seen combat du léegi ñoragul. daa mel da koy daw nag. non non non du daw dafa ñoragul. ñoragul surtout ñoragul waaw loolu mooy wax ci. loo koy wax ban 2 ban waaw Gris 2 champion la kenn xamee ko wax bu ñaaw lu rafet rek lañ ko xamee vraiment Alioune Seye kenn xamee ko wax bu ñaaw lu rafet lañ ko xamee ay champion la ñoom ñaar ñëpp yal na leen yàlla defal jàmm jërëjëf.